Euh, wala sax nag réerandoo ki nga xamante ne wala añandoo ak kii di njiita réewum France di président Emmanuel Macron njiita réewum Bassirou Diomaye Faye ak naataangoom bi di Emmanuel Macron daañu tase loolee bokk na ci lancement initiative yi lu jëm ci wàllum accélération ak produit jëm ci nu ñu indilee wàllum ñàkk fii ci Afrique ñaari chef d'état yi nag daañu waxtaanandoo waaye añandoo nag waxtaanee lépp lu ci aju buñ sukkandikoo ci communiqué bu duppee ci république maanaam ca présidente la république Bassirou Diomaye Faye euh, dina dem France niki suba ci àllarba bi yemoo ko fukk ak juróom-ñeenti fan nag ci weeru nag euh, juin bi ñu nekk ngir nag mun a bokk ci forum mondial boobee nga xam ne dañ koy teg ngir wàllum souveraineté ak lu jëm ci innovation lépp lu aju ci vaccin bu mucc ay fii ci Afrique ànd ceeg nag ak Union africaine euh, ci ndaje boobee sax nag dina lancer initiative ci naka la def ngir gën yokk nu ñuy defaree ay vaccin fii ci Afrique waaye tamit débat la boo xamante ni ndorteelu campagne ci naka la ñuy def euh, dajale ay ndampaay bu takk yoo xamante ne dañ ko jëmale atum 2026 jàpp 2020 2030 euh, dem rek naka ci événement Emmanuel Macron jot na convier njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ngir ñu mun a ñoom ñaax nag euh, mu nekk nag ab xibaar bu ñu jot léegi kon nag président Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy xarandi foofee ca France ki suba ci kàttanu yàlla. tey Pape Alé Niang jot naa écrasé majorité yu maire dus jëm rek ci wàllum mburu waaye tamit loo xam ne dañ koy lekk ak lépp la ci àddu jàppale ak lii di jëm ci wàllum farine leçon la rek koo xamante ne war na mën a nekk change boo xam ne mun nañ ko retenir ci àdduna maanaam mbiru Pape Alé dañ koy tekk rek ci euh, mbaal wàllum mburu ak farine ni mu amee solo tey kàddu maître Khoureychi Ba lu ñu waxtaanee leneen jëm rek ci wàllum drogue lu toll ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti kilogramme drogue moom la ñu daal di teg loxo fale ca masala di benn gox bu Kédougou ci aéroport international Blaise Diagne ñu teg fa lu toll si ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari médicament yoo xamante ni baaxul loole sax nag ca booru Koungheul buñ koy xaymaat ci ay ndàmpaal toll na ci ñaar fukk ak juróom benn milliard jàpp ñeent fukk ak ñeent millions ci suñu koppar waxtaanee génnum àdduna kii di Alla Dieng moo nekkoon ex secrétaire euh, permanent bu UNACOIS Yeesal tey ci altine bi démb la génn àdduna moom ex secrétaire bu permanent bu UNACOIS Yeesal Alla Dieng daal dina génn àdduna ni ki démb ci altine bi te booru 4 heures du matin fale ca Sagata Gétti nekk benn village bu nord ouest bu Sénégal euh, nekk ci diggante route bi relier Kébémer ak Daaru Musti euh, ca Touba Alla Dieng nag nekk koo xam ne jabet moo ko daal di faat nag ginaaw ba mu tëddee lu yàgg ci lal euh, jógut nag génnum àdduna noone waaye tamit ba muy am juróom-benn fukki ak ñaar daañu amal nag njëbbal boromam niki tey jii ba ñeenti waxtu jotee lañ ko jëbal fale ca Wadaan Sougou nekk benn gox ci département tamit nag bu Kébémer ba tey rek ci wàllum xibaar ginnaaw nag wax mbiru Sénégal ñu wutale ca Côte d'Ivoire ak kàddu Alassane Ouattara jot nag entretenir benn suspense jëm ci élection deux mille vingt cinq yi quarante cinq minutes discours bi nga xamante ne rek permettre wuñ ko mu yëkkati lu jëm ci incertitude loole wane sax ne dafay jël volonté rek briguer lu toll ci quatrième mandat fale ca boppu état bu Côte d'Ivoire ginnaaw nag ay kàddoom moom nag njiitalu nation bu président Alassane. Alassane Ouattara daal dina rek di di joxe nag ab jox benn indication boo xamante ni daal dina xam ne avenir politikam ak député yi ci kanamu député yi ak ñi di waa sénateur yi ñu dajalewu wu ci congrès annuel buñ doon amal ci Abidjan niki tey jii fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru juin point bi nga xam ne def nañ ko ànd na ceeg Imour waaye tamit lañ ca conclure di ay kàddu yoo xamante ni ak Imour yoo xam ne daal dafay marqué rek nekk di nekk commentaire yoo xamante ni daañu ko gis lu toll ci fukk ak juróomi weer rek des ñu amal élection présidentielle yi ñu prévoir ca octobre deux mille vingt cinq échéance nag lu jëm ci wàllum nag leeral desandi ak imprégné lu jëm ci esprit ak différence famille politique ak rassemblement bu Houphouët-Boigny maanaam ñi féete woon ci ki fi njëkkoon nekk njiitam président euh, Côte d'Ivoire nag euh, lu moom ñoo jiite parti bi di démocratie paix noonu mouvance bu pouvoir bi tamit ñoom desul benn yoon ci ginnaaw jotuñoo ñoo intéressé wu nag ci li nga xamante ne euh, moom la ministre yi cadre parti ak idée bi nga xamante ne rek chef d'état lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñetti fukki at ak ñaar la moom la ki nga xamante ne Alassane Ouattara depuis premier janvier mu ngi desandi ba tey nag ci bopp nekkaat candidat boo xam ne dafa samp ndam ca atum 2025 xibaar la boo xam ne tey jii nag jot nañ ko xamle prématuré na nag waaye nag ñëpp jàpp nañ annonce ba mu def ndax nekkul ne surprise rek la bëgg a indil wala seize mbir yu am solo yoo xam ne rek war nañ ko waxtaanee jëm ci candidature am résumé ko ci noonu Julien Kalib ci côté opposition bi maanaam ñu féetee ci kujje gi ancien président Laurent bo dafa daal di xam ne rek ne volonteem ngir rek fas yéene àddu ci condamnation bi nga xam ne yoon daal dina ko teg ci lum ndottam lépp lu jëm ci course nag élection yi ak parti bi nga xamante ne moom la jiite di PDC yi boobee nga xamante ne Tidiane Thiam jot na ci figuré wu mu nekkoon favori bu takku ak député bi di Olivier Akoto moom it jot na àddu ci sujet boobu ci discours bu mu yëkkati na ñoo ne ñuy xaarandi rek lu gën li nga xamante ne moom lañ fi gis président dafa waroon yëkkati voile bi nag xamal nit ñi intention day bokk wala du bokk loolu nag dina nekk loo xamante ne dinañu permettre askan ñu rassurer leen ñaareelu pays économique Afrique de l'Ouest di Côte d'Ivoire Alassane Ouattara nag jot naa effectuer nag amul benn annonce boo xam ne jox na ko volonté ngir ñu mën a xam nag résultat action yi ak lu ñuy daal di engagé ki nga xamante ne moom moo daal di nekk ci pouvoir 2011 ba tey ci yi muy sukkandiku nag ci moom importance progrès ci matière wàllum jàmm démocratie ak bon gouvernance muy sukkandikoo ci plan économique Côte d'Ivoire nag mi ngi continuer rek di wone doole bi mu am fii ci euh, Afrique saw jant ndaxte jamono Covid 19 bi ak euh, ci atum 2023 activité économique yi dafa daal di gënoon a boost wu ak taux de croissance bi toll na ci six virgule cinq pour cent waaye tamit chef de l'état jot na affirmé yokk ci nag malgré nag euh, li ñu jafe-jafe mbas mi jural terewut nag ci niveau international ak sous-régional taux croissance su lii di euh, Euh, Côte d'Ivoire dafa daal di gën rek yéeg toll na ba ci 7 pour cent ci plus tard ci atu période 2024 ba 2027 waaye tamit dette bi nga xamante ni maanaam lépp bi jot nañ ko maîtriser ci ab réponse waaye tamit critiques yi nga xamante ni ah, daal nañ ko amal socio ak liggéey accomplir ak ministre yi président ivoirien bi nag jot na daal di ennuyer dossier lu justifier lépp lu jëm ci satisfaction ak secteur yu jëm ci wàllum mine euh, de développement buñ ci nemmeeku moderniser waat lu jëm ci système wàllum njàng mi ak avancée importante yi nga xamante ne jot nañ ko nemmeeku ci wàllum nag santé bi jaarale ko nag ci déploiement ak couverture maladie universelle Côte d'Ivoire nag tey jii nekk ñetteelu pays économique fii ci Afrique francophone nekk ci ginnaawu Algérie ak ñii di Maroc nekk ñaareelu pays Afrique ginnaaw Nigéria Afrique de l'Ouest ginnaaw Nigéria ak buñ ko ci banque mondiale opposant di nekk ab nouvelle euh, positive yoo xamante ne mun nañ ko préparer ci tere bi xibaar yi candidature Alassane Ouattara daal war na assurer lu jëm ci wàllum de paix ak durable waaye tamit nu ñuy def ba bu sol boo xamante ne daañu mun a àddu ci lépp lu jëm ci juróomi at yi nga xamante ne moom la ñu dégg ma